vérification conseil constitutionnel euh, liste provisoire ñi ci boog a bokk ak liste définitive yëpp ñaan si njëkk njëkk rek njëkk kese amul leneen mën a ngeen ñaan ko si njekk ba tey ci seen scandale du jour kii di Pa Assane <laughs> moom mer na de nee naa <laughs> du ma wax nañ seetaan vidéo bi sarab lii sarab lii àgguma si sarab lii la ma wax ca sarab ba la ma yem. dégg sarab ca sarab ba la yem. sarab laa wax. sarab lii si li noo dund si lu bon. sarab lii. ah, ah waaw ca àgguma sa bu àggee nag la ñu koy noté waaye mab xel nag mun naa sore mën na romb itam. te mën na ma tëju sama biir nekk ka ma neex u daggal na ka xalaat ne rek ka xalaat rek ak moom ka xalaat rek a moom. waaw yàqu na nag bi ñu demee ba journaliste yi dañuy mer ba toog ci plateau yi dinaa charab. lu mu bëggoon wax ñun ñëpp xam nañ ko ndax dofuñu ndax mer hmm, yàlla baax na ku nekk nag boo meree ak ni ngay exprimer sa mer man dama part personnel su ma meree damay jooy su ma jooyee giif naa ndox ma giif ñoo ne bu ñu meree dañuy wax wax ju ñaaw saaga ñoo ne bu ñu meree dañuy wut ku ñu xulóol xeex ku nekk daal ak ni ngay exprimer sa émotion ku nekk daal te moom daal après vote bi rek plateau ba nii la ko nii la exprimé